jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. cantal ngërëm ñeen na leen mbokk internet yu 5M TV Sénégal xibaar yi dañuy àddu rek ci kàddu yi nga xam ni El Malick Ndiaye secrétaire national bu yore communication parti bi fi woon yëkkati na ko ci page tweetam ngir nag ñaawlu rek lu jëm ci waru candidat yi nga xam ni boobu léegi kon mi ngi yéex nag waa itam rek ak ñàkk fullaal bi nga xam ni def nañu ko ci Bassirou Diomaye Faye mili ak nag Cheikh Tidiane Dieye moom nag bu ñu sukkandikoo ci moom El Malick Ndiaye loole nag jëm rek ci woyofal mbir mi ci candidat yooyu nga xam ne kon dañoo rek war a bokk ci élection présidentielle loolu yëpp bokk na ci tey li nga xam ni mën nañu wax ni wàllu politique dëgg rek moo ko lal waaye nag ci li ñuy des mooy ci candidat yu Sonko mi nga xam ne nag moo ñu